pour vous dire rek ñun yéenewuñu kenn tolof tolof xëy na yarewuñu ko ku am sa xol bu bon ku am sa coxorte di ko yéene mbindeef loolu sa problème la parce que tey yow doomu aadama bi lu mu dee yaa ngi jur njaboot xamoo sa doom bi ëllëg lan lay dooni sa doom ëllëg xamoo lu muy dooni sa doom bu jigéen xamoo lu muy dooni kon nit bu nekkee si tolof tolof nga dégg ko nga dégg ko si rajo walla si tele ñu communiqué la ne la Pape Doro Gueye de a été arrêté hier yow mii di woote jullit nga yow mii di woote doomu aadama nga ne ah tolof tolof boobu dal ko de yàlla na ko yàlla dimbali ba tolof tolof yooyu mu génn si yàlla mun na ko dimbali comme lan bu dee dañoo ne xaalis lañ ko toppee heureusement rayul nit mën na xool ay mbokkam ay ànd jàmmam ñu dajale xaalis fay xaalis heureusement alhamdulilahi rabbil alamin parce que kenn ñëwul tey ne Pape Doro Gueye dañ ko jàpp de dafa demoon dàmpulu ji ñu jàpp ko déedéet kenn newul Pape Doro Gueye dafa rey nit dañu jàpp ko déedéet kenn newul Pape Doro Gueye de lañ ko jàppee déedéet Pape Doro Gueye dañoo ne jàpp nañ ko si lu ñu jot a dégg da daa am ku ko joxoon xaalis mu war a sekk ak moom ay mbirub terrain xay na kayit yi génnagul kooku xëy na yàqamti na ay terrain dem na porter plainte moom jël na engagement sax joxe xaaj bi yàlla na ko yàlla dimbali bu joxee xaaj bi mu war a mën a amaat leneen li nga xamante ni fay na ko loolu nekkaat sunu sunu sunu sunu ginnaaw mu jubli si kanamam yàlla di ko ubbil ay buntam bon bu ma gisee nit ñi di soxor nit ñi ndeysaan suba ba léegi ku seenee ne di si live di si kontaan taf fotom dans une semaine mën nga jékki-jékki gis li ko dal tey dal sa grand frère bi nga bokk ak ndey baay doo bëgg nit toog si réseaux sociaux yi di ko taf di wax déedéet li ko dal tey dans deux ans mën nga gis sa doom bi nga jur am même problème doo bëgg sa doom boobu tey ñu taf ko nii di wax déedéet dans trois ans mën nga gis sa jëkkër wala sa jëkkëru tante wala sa jëkkëru mbokk ainsi de suite ainsi kon soxorte sénégalais bi fan la egg tey débat yi waroon gën a nekk loo xamante ni loo xamante ni yow sénégalais bi di nga si gagné mais tey ñii di si wax yëpp tey dooroo Gueye buñ ko tëjee lan nga siy gagné lan doo si gagné dara tey Doro Gueye bu remboursé xaalis jàmbur bi loo si gañe doo si gagné dara man yaakaar naa ni baadoole bi fi mu waroon a nekk tey jii lan moo waroon nekk ay occupation am tabaski mu ngi ñëw jël na nguur bi dénk na ko merci pour kii may kër yeeg yooyu jël na nguur gi dénk na ko ay nit marchand ambulant yi ñu ngi xeex ñu ngi coow nee na ñu liggéeyuñu pour man loolu moo waroon nekk seen priorité ñu xool marsan ambulant yi ñu liggéey dégg naa ceeb bi doon jar kilo trois cent cinquante jamono ji mu ngi téeméer. loolu la ñu waroon a toog waxtaane ko naan waa lan moo tax ceeb doon jar trois cent cinquante jamono jub ma gën a nekk téeméer man néew di doole bi fu mu war a jëlee xaalis boobu loolu moo yaakaar naa ne moo waroon nekk débat bi sur les réseaux sociaux mais Doro Gueye tëj nañ ko après bu ñu ko tëjee yow boo tëddee tey si guddi sa yaay saako ceeb bu mu doon jënd amatul njëgu saako ceeb boobu lan nga nar a reeree lan lan lan lan loolu mooy encore une fois sénégalais yi xamuñu lan mooy priorité dañuy gis nit rek surtout nit ki nga xam ne boo gisee ñu bëri tey di ko laayival di si wax si moom bokk ñoon gis-gis si politique bokk ñoon gis-gis si politique parce que tey jii ñu ngi gis benn Ousmane Tounkara mu ngi Amérique gis nañu ñun ñëpp jàpp nañ ko si lan si lu mu doon sàcc ay oto di sàcc ay oto ba ñu tëj ko kaso Amérique ñun ñëpp gis nañu vidéo yi boo demee Google nga bind Ousmane Tounkara da lay génnal ne Ousmane Tounkara jàpp nañ ko mu sàcc oto ba tëj nañ ko si kaso bi mais ñii di woowee seen bopp patriote tey kooku la ñu def fierté tey kooku la ñu def seen seen seen seen seen seen seen kilifa kooku la ñu dem sax ba naan nañ ko def consul. tey benn Ousmane Tounkara mu toog naan man dama doon jël alal pour lu taal senegal sama loxo daf see dugg pour nañu rey ay nit sama loxo daf see dugg pour nañu yàq Sénégal sama loxo daf see dugg ay nit jël kooku tey def ko référence di ko kontaane pourtant PDG Doro Gueye bii ay nit a toog di yàq der rek mais musul sant nit saagal nit musul sant nit xasal nit PDG Doro Gueye lu mu mënoon mooy nit feebar na nga am sa ordonnance nga ñëw nga jox ko ko mu yëkkati as tuut li mu am mu jënd la ordonnance bi ba yàlla sunu borom si kattanu PDG Doro Gueye lu mu jëkkati benn dix mille wala vingt mille nga jënd ordonnance yàlla may na la tan lu mu dee dee sauvé na nit ku feebaroon naroon na dem barsàq exemple tey PDG Doro Gueye lu mu mën mooy tabaski mu ngi ñëw benn père de famille am ñaari jabar am ay doom yàlla sunu borom dogal père de famille boobu amul doole tabaski des na ñaari fan dem na fu ne pour am xar mënul am xar mu daje ku mel ni PDG Doro Gueye mu jëndal ko xar xar boobu tax tey xale yi bu ñu naroon kokkali doomu père de famille boobu wala ay jabaram si koñ bi duñ ko kóokali ndax PDG Doro Gueye PDG Doro Gueye lu mu mën mooy université ay jeune bu ñu toogoon ne am nañu problème seen bourse yi fayaguñ leen bëgg nañu seeti ji seen i papay village mënuñu ko PDG Doro Gueye génnee lu mu am as tuut ñëw jox étudiants yooyu ñu mën a dem ñii Casamance ñii Fuuta xoolu loon fii nga far xoolu loon fee nga far PDG Doro Gueye lu mu mën mooy bu ñëwoon si diaspora bi gis ay étudiants yoo xamante ni ñu ngi nekk si ay jafe-jafe fii si diaspora bi amuñu lu ñu inscrire amuñu lu ñu faye seeni ay kër amuñu li nga xamante ni mën nañ ko jënd si ay lekk PDG Doro Gueye dajale leen ñu nekk des milliers d'étudiants mu yëkkati as tuut ne am ñooñu étudiants yi dem mën a fay seeni fu ñu doon dëkk ainsi de suite ainsi suite kooku tey bu nekkee si tolof tolof li waroon sénégalais yi mooy yàlla na ko yàlla suturaal si tolof tolof bu mu nekk. heureusement ba xaalis samba mu ngi si doon gestu yenn néew di doole yi même bu dee mënul gestu ñëpp parce que yàlla sunu borom sax gestuwul ñëpp yàlla sunu borom mi bind ay jaamam gestuwul néew di doole yëpp dafa may ñii xañ ñale président de la république mi yor àdduna xaalis mënul gestu sénégalais yëpp waxuma ak benn PDG Doro Gueye li mu doon am as tuut mu ngi ko doon sekk ak jaamu yàlla yi demal si jàkka yi demal si jumaa yi demal fépp ci biir Sénégal kilifa diine yi Doro Gueye mu ngi doon dem di yëkkati as tuutam daan jox kilifa diine yi kooku tey bu nekkee si jafe-jafe lu waroon néew di doole bi lu waroon sénégalais bi mooy ñaanal sunu borom yàlla teggi nattu bi mu amee. rawatina natt boo xamante ni mën na dal ku ne man may ne alhamdulilahi rabbil alamin man PDG Doro Gueye damaa jël sama doom bu ma jur ku góor ñëw tuddee ko ko parce que lan parce que nit koo xam ne bu ma toogee jàkkaarloog moom di waxtaan du ma dégg baatam faaw ma def nii sama nopp ne ko grand lan nga wax nit koo xam ne bu jàkkaarloog yow nga nekk xale bu tuuti buy wax du siggi xool la day sëgg ndax lan ndax kersa bi nekk si moom ndax yar bi ñu des si moom ndax xam àdduna bi ñu des si moom mooy du siggi xool nit te bëggul defaral nit fukki dërëm nit kooku taxaw sax ne ko jërëjëf kooku nitu yàlla la doomu aadama nag même ba ci ay walliw ay dog-dog daan na leen dal ci àdduna donc PDG Doro Gueye mbindeef la yàlla mi bind jaamam di teg ay nattu ay jaamam teg na ko PDG Doro Gueye da koy nangu parce que ñii nekk tey si ay jafe-jafe PDG Doro Gueye gënu leen ñii nekk tey si ay tolof-tolof PDG Doro Gueye gënu leen doomu aadama la doomu Kaolack la dakaar ñu bëri xam nañu lu mu yëngatu social mais tey gis nga ndeysaan yenn journaliste yi ñi nga xam ne dañ doon dem sax si PDG Doro Gueye seeni kilifa di ñëw si moom di ko sàkku pour mën a fay seeni courant wala di mën a sàkku pay mën a fay seeni internet tey PDG Doro Gueye yëkkati jox seeni journalistes yooyu ma nekk si ay témoins yenn presse yi nekk Sénégal yu bëri tey ñenn toog seeni plateau di naan dañuy yëkkati ay kàddu jëmale si Doro Gueye seeni ay kilifa yàgg nañ ñëw si PDG Doro Gueye mu yëkkati pour fayloo leen njëgu sax salaire journalistes yooyu nekk foofu te journalistes yi mësuñu xam PDG Doro Gueye bu duloon moom weer bi duñu fay seen salaire donc pour man en tant que sénégalais. en tant que jullit en tant que nit koo xamante ni li nga yéene sa bopp war nga ko mën a yéene sa prochain doo gis ku nekk dans des difficultés boo xamul de un nga war a maandu boo xamul de deux nga gis nit ki jëkkëru jàmbur la papa jàmbur la mu ngi dans des difficultés nga war ko ñaanal li ko dalde de yàlla na ko ko borom bi teggil su nu mu gën a gaawee mu ñibbiwaat si njabootam loolooy rôlu jullit loolu mooy rôlu sénégalais mais ku nekk toogee wet ñii di si wut buzz ñii di si wut vie ñii di si wut ay abonnement ñii di si wut xaalisu YouTube pour après dem lekk ku ne di si ubbeeku kii naan Doro moo doon fay ay nit ñuy saaga Sonko barki alxuraanul karim barki salaatul fatiha man en personne li ma concerné tey jii bu ma toogee internet saagatuma PDG Doro Gueye bokk na si ñu tax bu ma toogee biroom lan la may wax kali ku la saaga sax melal li déggoo saaga bi defal ni man mu ne Kali xanaa gisoo ma man lu ne laay dégg est-ce que mës nga gis ma tontu lii la doon dugal sama nopp Kaliphone bu ma doon dégg waxu nit ñi duma ma toog ak yow lii la doon dugal sama nopp parce que dafa may xaritam yoo doon xam ne dañ ko ne waa Doro Gueye Kaliphone fu mu toogee di la sant di la gërëm ba tey sax di la tuddee doom booy bi saagakat la waroo toog ak moom dégg na ko yàgg na mais dafa ne tey nit ñu baax ñii ñoo war a jël ñi nga xamante ni danoo bokk ci société jékki-jékki nar a dëng génn société bi tuuti ñu jëlaat leen dugalaat leen société bi man Doro Gueye lan la ma doon wax kali boo gisee nit kuy saaga sax woo ko nga ñëw présenté ma ko mu bàyyi saaga bi mu ñaat si société bi yéen dañu leen soxla société bi barki alxuraanul karim ku dee ak sa bàmmeel tey Doro Gueye bi dina la lakk ay sénégalais yi nga xamante ni ñu bëree bëree bëri nit koo xamante ni nitu yàlla la kenn mësul gis dooru Gueye mu ngi xuloo fii ba ca Kaolack bi mu juddoo ba Kaolack bi mu màggee kenn mësul gis dooru Gueye mu ngi si ay waxu kasaw kasaw kenn mësul gis dooru Gueye ci plateau tele muy animé émission mu naan Macky sàll nii wala Sonko ne mësul yëkkati kàddu gu ñaaw jëmale ko si Ousmane Sonko bañ na ko ba këram ak këru Ousmane Sonko mën na ne ñoo jàkkaarloo. boobu bu génnee loolu la ma doon wax mu ne ma Ousmane Sonko de ndeysaan bu ñu dajee ni daf ma ne eh booy naka mu naka seen gars yi nag muy waxtaan ak Ousmane Sonko dooro Gueye musul am problème ak Diomaye Faye ba si élection yi ñu génn nii am na ñoo xamante ni si Jomaay Fay la ñu bokk barki yonent yàlla Mouhamed Dooru Gueye jël na si alalam ñëw jàppale ñooñu parce que Dooru Gueye xoolul Jomaay Fay xoolul sonk xoolul Macky Sall Sénégal la xool Sénégal jàmm Sénégal salaam pour bépp Sénégalais bi nga xamante ne investir na ci biir Sénégal nga mëna bu dee jaaykat nga nga jaay si jàmm bu dee woykat nga nga woy si jàmm bu dee tànn beerkat nga nga tànn beer si jàmm lépp loo xamante ni jàmm woon si loolu lay dox tey bu ngeen demee prison ba la ca Ndakaaru Njaay Jal Jóob ñi doon ñëw si kaso bi bu njëkk xam nañ ne bu ñuy wax ak prisonniers yi nan lañ doon waxee ak prisonniers yi ku ne day toog cak cak cak cak cak cak cak comme ay seeku doo dégg parloir yi nekk foofu fi ñuy waxee allo nga toog di wax PDG Doro Gueye moo ko fa def tey boo demee si yeneen prison yi bu ñu amee ay télévision bu ñu amee ay matelas Doro Gueye moo yërëm prisonniers yi ne prisonniers yi de fu ñuy tëdd métti na lool mu dem yëkkati ay mat laa dem may ko ay prisonniers pénitencier yi duñ ma bàyyi ma fen PDG Doro Gueye moo doon toog jël jox ay nit bëggu si sax feeñ ñu dem camp ñu xool jigéen ñi nga xamante ni ñu ngi si ay tolof tolof mu taxaw ñooñu PDG Doro Gueye moo doon xool ay nit yu nekk cent mètres amuñu lu ñu jëndee avoca mu jël si lu ko yàlla dénk as tuut mu fayal ñooñu te xamul ñu si ndey xamul ñoo ñu si baay ñi nekk tribinal mën nañ ma bàyyi ma seede ay pénitencier garde yeeg police yeeg même da doon jékki-jékki dem police centrale gaare otom bu ñëwee xool ñenn lañ fa def garde à vue ramasse mu jékki-jékki rek xaalisam ne jëndal leen ñuy reer parce que la plupart nit ki mën nga dox vingt deux heures vingt trois heures ñu ramasse la say mbokk du ñu yëg doo am loo lekk Doro Gueye day gaare otoom jël xaalisam jënd ay sandus ne ñi nekk si kaaf bi nii wala ñi nekk tey si violon bi nañ leen jëndal reer kooku àdduna di dox yàlla sunu borom teg ko natt natt boo xam ne jombul kenn parce que bépp nit bu amee bakkan di dund fi ak génn goo àdduna lu ne mën na la arrivé si kaw suuf gis nañ fi ay imaam imaam yu jàngale alxuraan jàngale nodd jékki-jékki rey na nañu seeni naayim gis nañ ko fi dem ba am soixante-dix ans jël paaka jam seen naayam ñu ne imaam ba rey na diw looloo gën a métti fop munu doon mënuloon ñàkk gis nañ fi tey ay imaam di dóorante ba kenn jam nit ki mu dee gis nañ ko fi gis nañu nit tekki-tekki ne imaam la day jàngale daara day jàngale alxuraan seytaan dugg ko ba taalibe yi muy jàngal alxuraan mu def le dakk sudul noonu ba tey jii muy si kaso bi looloo gën a métti fop lii looloo gën a métti fop lii looloo gën a metti fop lii musul sàcc xaalis senegale xëy na am na ay terrain yoo xamante ni am na ku ko naroon a jaay si lu mu jot a wax si lu ñu jot dégg si presse bi kooku jox na ko xaalis kooku jox na ko xaalis sàcc sunu alal déedéet sàccul sa alal parce que tey buy remboursé du sénégalais yi lay remboursé yow miy toog si TikTok bi jël sa temps dinaan Zora Gueye dañ leen war a téye ñoo sàcc sunu alal bu demee brigade de recherche buy remboursé kii ko joxoon xaalis di un milliard ak lu teg si lu ñu jot a wax kooku lay ñëw fay yow miy ubbeeku di rëy ŋaam di mbalalala di wax doo si am un centime kon yaakaar cinquante tey mu ngi téeméeri dërëm nga toog nga def débat nga ne gars yi waaw luy problème bi ba ñu ne woon kaa fi jëlee benn Macky Sall ñun bu ñu ñëwee dinañu neexal seen nguur ñu neexal seen vie tey Macky Sall jóge na fi amul deux mois ceeb bi sama yaay doon jëndee juróom-ñaar dégg naa sama yaay téeméeri dërëm la koy jëndee looloo jar débat looloo jar débat dégg naa démb xaw ma tey am na gaal bu débarqué woon foofu ca Dakar ca Sénégal ñett nit dee nañ looloo jar débat gars yi lan mooy problème bi ba nguur gi dafa ne woon bu jëlee nguur gi benn ndaw dootul jël gaal dañ doon toog ne ndaw ñi bu ñu jëlee gaal nguuru Macky Sall la doxul sunu ñii nga xam ne yaakaar nañ leen toog nanu mais ndaw ñi ñu ngi jël gaal ñu def ko débat d'idées lan mooy solution bi nan la ñu mën a def ba benn ndaw bu mu jëlati gaal ba muy dee si géej bi loolooy débat mais jël benn photo géey euh, Doro Gueye huit heures ba minuit taf ñii di ko saaga yaayam lan la leen def ñii di saaga Doro géey yaayu Doro Gueye lan la leen def ñii di saaga Doro géey lan ngeen joteeg Doro Gueye Doro Gueye lan ngeen jote du c'est un c'est pas un politicien du du assemblée nationale du directeur du ministre dafa am beneen sénégalais bu mu joteel yow bu joteeg beneen sénégalais li la war mooy ah ñaari sénégalais yi jote lan la kii yëkkati na xaalis joxoon na ko moom joxagu ko këram ah yàlla na ko yàlla dimbali ba mu war a mën a am xaalis bu mu ko remboursé jàmm na ñooy ku ne dox sa dox ñoom ñëpp ay père de famille lañu looluy dëgg mais nga jël benn Doro Gaye affiché di ko saaga di ko xas mel ni yow parce que lan parce que bokku leen woon gis-gis ci politique parce que def nga ko noon benn sénégalais nga ñëw def noon parce que bokku leen Ousmane Sonko bi ngeen bokk te ñi ma gis tey ñu koy laajal yëpp waa kër Ousmane Sonko yi leen day sànn moo tax dem leen yërëm parce que li ngeen nekkee du tayeef lii di naqari seen xol di ngeen continuer di dox àdduna di gën a ñëw même bu Ousmane Sonko tabaxoon senegaal ba mu mel ni Paris seen xol yi du ma sa neex seen xol yi da ngeen di xëy muy gën di métti rek parce que noonu la leen yàlla def gis nga doomu aadama dangay laabal sa xol doomu aadama dangay bëgg sa beneen morom doomu aadama doomu aadama da bëgg sa beneen moromu sénégalais loolu la ñu xamoon senegaalu démb moo tax ñu toog sax naan senegaal pays de la teranga lan moo tax ñun ñu judd rek dégg ñu ne Sénégal pays de la teranga du ñun ñoo tax Sénégal nekk pays de la teranga génération bi ma gis tey bu doon ñun rek la Sénégal du nekk pays de la teranga mais boo gisee ñu naan Sénégal pays de la teranga sunu maam yi ñoo ko def sunu papa yi ñëw def ko mais ñun dañoo ñëw yàq lépp parce que bu njëkk da doon jóge Casamance ñëw Dakar kii dëkk Fuuta ku dëkk Fuuta ki nga dajeeg moom dakaar mu héberge kii jóge Casamance. da nga doon dëkk dakaar nga nekk séeréer kii jóge Mauritanie xamoo ko nga héberger mauritanien bi loolu moo taxoon ñu ne Sénégal pays dala la teranga da nga doon gis benn ñekk jóge ñëw Sénégal nga defal ko teranga ba bu ñibbee ne Sénégal ma gis lu am foofu dangay ngay agsi ñu jàppee comme ñi nga bokk ak ndey ak baay mais léegi loolu changé na da ngay gis ay nit yu bokk benn kër bokk ndey ak baay tey politique bi xew tey ak jamono Ousmane Sonko tax na ñaari nit yu bokk ndey ak baay waxatunu parce que lan parce que kii àndut ak Ousmane Sonko mu ne yow comme ànd ak Ousmane Sonko doo nit ku baax te la plupart ndeysaan bu ngeen xoolee ci réseaux sociaux yi ñu ñëpp ay sénégalais lañu ñun ñëpp ñu ngi ubbi suñu ay gëddi xool tey jii di nga gis ñan ñooy toog naan ku àndut ak Ousmane Sonko doo nit loolu ngay dégg. ku àndut ak Ousmane Sonko doo ko baax loolu ngay dégg ku àndut ak Ousmane Sonko doo patriote loolu ngay dégg mel ni Ousmane Sonko benn politicien la bu ñëw gën yeneen politicien yëpp gis sunu lan la Ousmane Sonko gënee benn politicien si kaw suuf gis sunu miracle bu Ousmane Sonko defagum ci biir Sénégal ba war a mën a tax ñun ñi toppoon yeneen politiciens yëpp ñu bàyyi politiciens yooyu ñëw topp Ousmane Sonko man tegaguma saw politiciens yooyu ñëw topp Ousmane Sonko man tegaguma sama man tegaguma sama politiciens yooyu ñëw topp Ousmane Sonko man tegaguma sama leader ma bàyyi ko pour ñëw topp Ousmane Sonko mais man gisaguma Ousmane Sonko miracle bii la def wala projet bii la teg ba war a mën a tax ma bàyyi fi ma nekk ñëw di ko topp ñu bari nag ndeysaan ma riirandoo moo leen sonal am sonko indil sonko làmmiñ bu rëy ñii dem ragal parce que boo àndut ak sonko ñu saaga la boo àndut sonko ñu xas la boo àndut sonko ñu ne ko bon nga ñun on assume ànduñu ak sonko ku mu neex saagal ñun on assume ànduñu ak sonko ku mu neex xasal ñun on assume ànduñu ak sonko ku mën rey reyal fii nit ku ne yaa moom sa bopp garabu picc day taxaw si garab gële taxaw fa trente minutes garabu kàdd jékki-jékki naaw dem si garabu limon bi te kenn du ko dóor rawatina magum jëmm am jabaram wala am ay doomam nga naan kaan fii ngay xool par la force déedéet loolu du mës a am ku ko nangu sa problème la ba ñu yàlla bindee ba pare ñëw andi gën ngi mbindee sallallahu alayhi wa sallam ne kii moo gën ci yéen ñëpp. bi ma leen tàggee tey jii bu ma leen bindee tey jii bu ma leen nar a jéggal sax seeni ay bàkkaar ëllëg kii yee tax mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa am ñoo xam ne dañoo ñëw ne gëmuñu ko te pourtant musu leen dégg nit dóor nañ ko parce que dafa ne gënul gën gi mbinde sallallahu alayhi wa sallam musu leen ko dégg musu leen dégg nit saaga nañ ko parce que nee na àndut ak gën gi mbinde sallallahu alayhi wa sallam déedéet waa sa gëm nit ki moo libre àndut ak Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nga bàyyi ko di kaf ak moom di reew ak moom bu nit ki ne àndut ak sa leader lu tax nga ne da koy noonoo lu tax nga ne da koy saaga lu tax nga ne da nga koy xas ainsi de suite ainsi de suite donc encore une fois mooy li ñu leen di wax rek mooy li ñu leen di wax rek ñi gëm seen bopp dañuy continuer di gëm lu nu gëm même bu dee dégg nañ ci kaay tey dinañ la rey même bu dee dégg nañ sa nangam taanu ndey même bu dee dégg nañ si fii ak suba di nga dee ñi gëm dañuy gëm rek ñi nga xam ne nag gëmuñu ñooy dégg nit xoqatal leen ñu tiit fii mag ñu baax ya daan nañ ko wax ku la tëkku nga tiit weddi nga sa borom man loolu dama ko jàng doomu aadama mu taxaw mu tëkku la yow nga tiit baye nga dem nekk ji yéefër jàppal ni yow weddi nga sa borom xaw ndax jox ngeen ma nopp bu baax bi doomu aadama ni yow ak ku mu mënti doon ci kaw suuf doomu aadama bu mel ni yow jàkkaarlook yow mu yor baqan nga yor bakkan mu ñëw mu ne la dinga nga dee wala di gis mu tax laa nga tiit weddi nga sa borom parce que lu nar am du kenn lu nar a am yàlla sunu borom boo naree accidenté boo nekkoon milliardaire jour day ñëw da ngay accidenté boo naroon gaana boo fi ëppoon xam-xam si kaw suuf jour day ñëw da gaana parce que sunu borom namoon na ko si yow boo naree réussir bu ñëpp daje woon di saaga sa di yàq der di tilimal tilimal di la yàq di la wax lu ne jour réussite bu ñëwee da ngay réussir